abonné ci seen seen coow li coow li mën nañ ne moom la moom kan moom mi nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko donte le nag mën nañ ne jël buñ jugee fa seenee jàll ci beneen jël tanaka pax muñ gas rek dañu bëgg a gasaat meneen pax dolli kasa di leen di wax nag ngeen di wéy di abonné te ngeen di jam ngeen di like di like vidéo yi bu baax a baax ndaxte kat procès bi nga xam ne rek moom moo soxal kii di Adji Sarr Ousmane Sonko mën nañu ne dafa jege lool ak procès bi nga xam ne rek moom mooy bu Mame Mbaye Niang nekkat une semaine rek moom moo dox ci seen diggante mën nañoo wax loolu ndaxte le 8 mai ak le 16 mai nekk diggante bu nga xam ne rek bu gàtt gàtt la ci benn leader politique bu nga xam ne rek dañoo jàpp ne ñi ngi koy xoqatal ci biir réew mi di ko teg ay naqar ak ay tiis ak ay métit yu nga xam ne rek dañ ñu ko wuyoo yaay doo fi yuuxuwee ndaxte kat fii mën nañ ne benn baat moom moo fi am te baat boobu bu jibee par force ñëpp dañoo war a def li mu wax loolu nag tax ñu baree bari daal di dellusiwaat nag ci injustice gi nga xam ne rek daal dinay am gannaaw nag source bi nga xam ne rek RFM daal na koy jot génne comme ça su ne niñ koy faral di defee rek ci procès yi ni mel nekkat daal nañ leen di woolu ñoom ñaar kii di Ousmane Sonko ñu fas yéenee defaat li nga xam ne rek moom mooy seen janoo ñu xool nag ba xam fan la wànnent di mujjee ak ay gëtëm loolu nag nekk mbir mi nga xam ne rek jamono yi ñu toll nii moom la patriote yëpp xëy rek di ko ñaawlu nekkat dañoo